jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki Serigne Dame Seck mu Serigne Touba gis ngeen ni mu dugg see tey ñu ngi ko fekk fi nga xamante ni moom mooy cabinet bi nekk ci teenu maam Cheikh fii ci euh, Touba muy borom xam-xam mu ne ma dinaa leeraat ci point yu bëree bëree bëri li waral ma gëj a génn sëñ Dame 31 décembre bi passé gis nañ ko mu jël camion ceeb siyaaree ko sëñ Mountakha Bassirou danañ ko ci laaj. mais bu mu nekk sëñ Soxna moom moo ko daan la daan àndal ñëw ci yow di siyaare si nga jaaral ko mu moo doxee mu ñëwoon tey siyaare si ak ay sëñ Dame leeral sëriñ bi sa taxawaay ngay taalib sëriñ Soxna Gueye leeral bu ngay nekk tout ngay ànd sa addiya indi ñëw jëppal dina a mën ko laaj fi dëkk bi toll diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye ak ñàkk wuyu ji mbokk yi rek rek ak Sa Thiès nekk na loo xamante ni dinaa ko ci laaj sëñ daam danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi danañ waxtaanee sarax yi diggante sëñ daam ak jinne yi tamit danañ ci dugg ànd ci ay leeral mbokk yi tey danañ waxtaan wi waxtaan wu doy waar parce que sañ daam xaal la dugg see sëriñ daam sekk dañ lay bàyyi nga nuyu askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay. xam naa ne fi mu toll nii yaa ngi ci xaal ndax sa lépp xasaayit la. mais sëñ daam dañ lay bàyyi nga askan wi ñu soog a xuus euh, waxtaanee li xew ci Sénégal. man sëñ jàpp sëñ Tuubaa rek la dégg ginnaaw ba ñu ñaanalee kaw nu nabi yu sëriñ Muntaxa Basiir maa ngi ñaanal bu baax tamit. mboolem umma islam bi yëpp. sama mbokki chrétien maa ngi leen di gërëm bu baax a baax kontaan naa yéen chrétien maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gis naa teraanga yi. gis naa teraanga yi baax maa ngi leen di kontaane bu baax. maa ngi gërëm te waa diaspora yi. maa ngi gërëm umma islam bi yëpp. dégg tey nuyoo bi moom daanaka dama koy damay jéggalu rek. Ah, mais la moo tax loolu. naaw ba Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jërëjëfe Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jërëjëfe Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul jërëjëfe kaw nu nabiyu sëñ Muntaxa Basir sama nday sama baay ñi ngi leen di jaajëfal sëñ daam mu am jëf joo xam jëf nga ko tey bala ñu dugg ci waxtaanee jinne wala rab wala waxtaanee ay gàllaaj wala nopp wala sax waxtaanee diggante Ousmane Sonko ak état bi damay njëkkee ak yow ci Euh, jëf ju ju màgg ji nga xamante ni jëfal nga ko sëñ Muntaxa euh, xam naa vidéo yi dañ leen ko laalal noonu ci suuf ñu gis la nga jël àddiyee ceeb bu bari di ko jox sëriñ bi euh, ak xaalis loolu day wane ne sëñ daam murid saadix la. dama ne. loxob Cheikh Ahmad bu tuuti bii. kum fande. Allahu akbar Allahu akbar. bu tuuti bi kum séddul dangay ngay fande. Mm-hmm. jàmbaaramul ku ndimbali moom. Mm-hmm. man su ma yëkkatee ay teraanga yëtti ko kaw nu na bii sëñ Muntaxa Basiir peccum liir bu neexee allah ji dégg sëñ Muntaxa moo ñu dimbali moo ñu teete moo ñu ñemeloo moo loolu moo waral faw ma yëkkati teraanga bu poroxaan lu mel ne poroxaan bu jub see faw ma yëkkati teraanga na ko yóbbul ma ko daara poroxaan jëfal ko Serigne Touba. jëf nga ko Touba tamit 31 décembre passé. di sant rek. sant mu Mountakha rek. waaye li ma bëgg réew mi xam ko mooy kenn du sëriñ Touba. li ma bëgg réew mi ñu xam ko mooy nan dugal suñu bopp yi suñ bopp yi nañ ci def ndox bu wér a wér a wér te xam ne kenn du xaadim rasool gis nga lu la waaye man di naxee na la nax ci xaadim rasool mm. man loo ma man di naxee rek na doon xaadim rasool man sëriñ daam sekk bu sëriñ Touba kenn du sëñ Touba. Euh, sëñ daam tey Ah, ginnaaw loolu tamit maa ngi ñaanal askan wi yëpp maa ngi ñaanal ñëpp rek di leen xamal ne nan ñu teewlu ndax tey ku ñu teewlu da nga dégg dëgg. tey ku ñu teewlu. dégg déglul bu baax li ma ku ñu teewlu da dégg dëgg. da dégg dëgg gu wér péng péng péng ndax xam-xam lu am la. xam-xam lu am la xam nga li ma bëgg réew mi ñu xam ko mooy xam-xam lu am la. te yàlla dafa mën a maye. loolu tamit faw ñu koy dugal suñu bopp yi saa su saa su ne ñu koy dugal suñu bopp yi nañ ku dugal suñu bopp yi ñaata yoon laa ko wax nañ xam ne yàlla dafa mën a maye. dëgg la nañ ko dugal suñu bopp yu baax a baax a baax enregistré ko li ma wax ni ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ñun ñun sant nañ bu baax a baax dañuy génn pour labirante mhm. ndax bu ñu génnul labirante ak askan wi yàlla ñu téye. te bu nu bu ñu téye na ana li ma la defaloon na laa dimbali ci doomu aadama looy wax. te man réew mi tamit daa am lu ma ci xaw a jaaxal. boo boo bëree xam-xam toog sa rëq ñu ne ñu ne daa nay ca xam-xamam du génn. léegi boo génnee ñu ne day dóor. waa léegi kon léegi fu ñu li xew ci Sénégal euh, doy na waar mais sëñ Dame tey question bi ma la njëkkee euh, posé mooy sëñ Dame Seck mu sëñ Touba hmm. dafa am wax joo ma wax. Hmm. nga ne moo boo bëggee xam ne diw man na wala mën na ñaan wala man na seetloo ko suñ daam dafa mel ne nga wóolu sa bopp ci seddee waaw ñun yàlla daf ñoo may ci wàllu seet ñun nit ki pour ñu ñaanal ko faaw ñu seet ko parce que buñ ko seetee ci leen mën a xam ba ban yoon laay jaar ba saafaraal ko mbiram même xasu xaalis yi may liggéey. ku ma ko man di ku ma mën di liggéey tamit dama da may jox sa tur ak sa yaay. ma la saxaar ko léegi bu ma la saxaaree nag ci laay man a xamee ban yoon laa lay jaarale sa sa mbir. dégg nga wax bi wala dégg nga wax bi faw ma xool ba xam nit ki ndax am na lu koy yàqal wala amul lu koy yàqal. ndax day am ñoo xam ne day amee àndaale boo xam ne da leen a yàqal. te àndaale pour nga tàqale ko nit ki loolu faaw nga taseeg sëriñ dëgg dégg dégg faaw nga taseeg sëriñ dëgg moo lay man a tàqaleel àndaale rab ba àndaleel la ko ne defal la sa liggéey say mbir ubbeeku ndax am na ñoo xamante àndaale rab ba leen solo yàqal leen carrément léegi nag loolu faaw nga listixaar ko mën a xam ban faan na rab la rab daa bari façon boole ci rab daa bari ay façon mais rab ak ginne la may différence wala benn la rab ak ginne bu loolu leeral naa ko ay yoon yoon ci ay vidéo rab rab euh, mag ñi mag ñi mag bu njëkkoon ndax diw daa amee aw àndaale rab. waaw mais rab mooy jinne rek. Mhm. mooy jinne mhm. waaw e, e, yàlla jinne la jinne la jinne la sàkk ak doomu aadama pour ñu jaamu ko waaw. wa maa xalaqtul jinna wal insa bu liya'buduun daf ñoo sàkk ñu nekk jinne pour ñu jaamu ko. Mhm. léegi e, jinne yooyu nag daa am jinne yu lànk yoo xam ne dañ ne ko jaamuwun la yow yàlla. dégg nga wax be jaamuwun la yow yàlla. kon ñooñu la sëñ daam daan saaga. léegi nag ñooñu nga xam ne ay kàccoo la ñooñu ñooy jëflante ak sëriñ daam bu yàggul sax am na ay jinne yoo xam ne dama leen a pine à part seen yaayee ñëwoon di lijjanti bu yàggul seen yaayee ñëw di di ko man parce que damaa am lu ma leen jox ndigal ñu ne duñ ko def ma duma leen na leen di ngeen tuub ñu ne ma duñ tuub ginnaaw ba seen yaay nag dafa nekk am xam-xam bi mu ñëwee moom tamit dama ko tëj man damay jàpp ji ne pine ko pine pine ko voilà man damay jàpp ji ne pine ko parce que dama ko bu bu bu génnee tàkk-tàkk maa ko ëpp tàkk-tàkk looloo tax man dama damaa bëri ay felngeent man tamit. dafa bëri tàngoor man loolu jaaxal. loolu mooy problème gis nga tàngoor yi comme koy ni ma koy wane doomu aadama yi nii doomu aadama yi gisuñu dara de jinne yee gis. jinne yi ñoo gis noonu la demee moo tax kon doomu aadama bi pour aajo mën a faju faaw sëriñ daam moom daf koy seet mën a xam ba ban yoon la cay jaar. Mhm. dégg nga wax bi bu fekkee ay liggéey ko téye. ñu xam ba xam lan moo ko téye. Mhm. bu fekkee ne daa am euh, ñoom coowal ak yooyu ñu xam nga daam ñoo xam ne boo coowee ñoom dañ lay yàq mën nga nekk ci bërëb nii tamit ñu een la yàq la yooyu yëpp day am kon léegi moo tax doomu aadama faaw ñu seet ko bu ñu ko seetee mën a am yoon bi ñu koy yoon bi ñu jaar ak moom suñ daam tey daa dugal sa xaalis rek ma dugal sa poos naan la dana baax du ma ko def dama naan la téyal sa xaalis tama seetal la waaw nangam laay seete nga dugalal ma loolu ma xoolal la bu ma xoolee mën a xam ban yoon laay jaar sa mbir boo ñu doyloo nag laa boo ñu doyloo seetal keneen sëriñ si bari nañ wala déet. sëriñ si bëri nañ. sëriñ si bëri nañ trop. ñi ngi ci internet bi bari lool. waaye dama laa bëgg xamal ne ki ka man ak ki kay jéem dañoo bokkul rek lool doo ngay wax bi moom. ki ka man ak ki kay jéem bokkul. xanaa mooy la ma ne woon cin bokkul safin. cin bokkul safin loolu rek la loolu doo ngay mbir mi. Mm-hmm. man nag gërëm naa sénégalais yi ci nin ma def. Mm-hmm. waaw gërëm naa leen bu baax mm-hmm. beneen bi ci topp tamit baal naa ñëpp ànd na ñëpp tamit jéggal naa ñëpp tamit waaw waaye dafay am tamit ay ndaw yoo xamante ni dundul xam fuy metti te beneen bi ci topp gi nekk ci ñoom day ñoo xam ne ruu gi nekk ci ñoom mooy salte ruuba moo setut léegi ruuba nag bu setut doo xam metti jaaj mm-hmm. doo xàmmee sëriñ doo xam wàlliw doo xam lu te sa micro bi gis nga loo yor am micro wàlliw dana ko téye doomi xaraam dana ko téye ku baax dana ko téye kàccoor dana ko téye mm-hmm. le dama dama damay dimbali sénégalais yi rek gis nga lii nga téye ku ne dana ko téye nit ku baax dana ko téye nit ku bon dana ko téye. am na ci ñoo xam ne nag fellit ji am ca Seydina Ahmed xam nga ruugu mag ga mooy Seydina Ahmed leer ga mooy Seydina Ahmed doomu boo gis muy waax wi am na ca damay ñëw ak sénégalais tuuti ci wàllu xam-xam soo ko ñëw ci li liggéey ruugu koo dem am na fellit leer ga gu mag ga ma ngi ci Seydina Ahmed alayhi salaatu salaam koo fi gis muy waax wi de am na fellit léegi fellit soo su nekkee ak yow nag sàmm ko boo ko sàmmee loo bëgg doon dooni ko waaw waaye bu fekkee ne topp nga jigéen ñeeg yooyu topp caaxaan yi ba caaxaan a caaxaan doo xàmmeeti jaaj ak joor doo xàmmeeti jaaj ak joor doo xàmmee eh, wala kamaal doo xàmmeeti nit ku baax doo xàmmee dara loolu tamit faaw ñu bàyyi ko xel te ñëpp mën nañoo maase bon waaye yow sëriñ si ci média bi allaaji med allaaji medul sëriñ si ci média bi yëpp boo maasee na ñëpp dañoo bon waa léegi kon kon xanaa kon ñëpp a bon da war a wax am na baax da ngaa war a am na ñu baax am na ñoo xam ne dañoo génn pour labirante ak dimbali doomu aadama yi. loolu la Sénégal daam nañ génn foofu sax man fi ma bëgg ñu dugg fa bokk na ci euh, ndomba 21 gaaw gi nga xamante ni dégg nañ ne yaa ngi koy liggéey te mi ngi def lu doy waar ndomba 21 gaaw gi ci lan lay dox. ndomba 21 gaaw bi pouvoir la maanaam bu nekkee ak yow boo nekkee ci bërëb ñu bañ la dañuy mujj dañ lay déggal. Mhm. dani dañuy mujj dañ lay déggal. wàññiku bu baax a baax a baax déggal la. maanaam nga jiita fa dara société wala yooyu. ñu la doon bañ ak yooyu boo amee ndomba bi ci sama loxo nag laa wax. ci loxo Serigne Dame. ci samay numéro samay numéro 78 433 77 64 wala 76 859 97 26. mooy affiché nii rek ñaari numéro yooyu affiché. bu ko defee da am ndomba Serigne Dame ci loxo Serigne Dame. man pare guddi laay liggéey ndomba bi. ay ginaar ñu laay rendi jël dara bi liggéey ko ndomba bi. loolu moo war Colobane day daal di faatu day daal di faatu dem wa ilaa mu yàqu yàqu yu yéemee yéemee yéeme ku jël ngaan naay pour bëgg laa yàq day yàqu dégg nga wax bi bokkul ak takkitil waaw ndomba 21 bi bokkul ak takkitil pour ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax voilà. Euh, mais ba tey ndomba googu tamit buñ ci gënee dañuy dugg ci nopp suñ daam euh, nopp nekk na loo xamante ni tey yàq jàpp naa ne Sénégal sëriñ buñ naan mën na pire. war na def jaloore ci li nga xamante ni moom mooy nopp tey sa diggante ak nopp ti bëgg naa nga wax ñu yan jaloore nga ci def. man noob sax euh, dégg dogguma la waaye noob sax euh, xale yi daanaka ñoom laa jàngaloon wàllu noob ba xale yi ñoo ko daa def. man daanaka daanaka daanaka yu ci ëpp ëpp euh, lu ci lu ci bëree bëree bëri ci yeneen liggéey ci laay nekk ak yooy xale yi rek laa joxoon wàllu noob yeeg yooyu. Ah. te suñu noob man bu ma noobalee nit ki trois jours bu sottiwut ci trois jours yi nee ma sañ daam nee ma tuddoo sëñ Dame Seck bu Serigne Touba loolu kay leer na ba pare tamit génn na wax. ne sëñ daa mënta nopp loolu kay xanaa leer na dama xam nga boo jaxasoo bu la wàlliw të ak wàlliw bu la baax të tamit jaxasool ko baax man dama euh, am lu ma tàmbalee roy ci sëñ Muntaxa ak am lu ma ko xës ba donn ko ndax mbaax gi ak oyof gi ak lewet gi ak laabiir gi may may faral di jaxasoo ak moom loolu moo waral lu ci bëree bëri euh, ndeysaan dama ci am ñeewante ci doomu aadama yi dégg wax bi dégg wax bi waaye man noob bu fekkee ne danga ngaa yàgga noob lu mu të naa ko seet seet man bu ma ko xoolee danaa xam yoon ba ma cee jaar te trois jours laa la may ñetti fan loolu kay leer na xanaa. ñetti fan trois jours moom laa la may. loolu kay leer na. mais noob ak këyit ban moo a jafe ci liggéey. Euh, dégg naa papier lu am ñoo xam ne dana am raxwaan boo xam ne dalay yàqal loolu laa waxoon ci commencement bi. Mhm. dafa am ñoo xamante ne day tas seen yaakaar ak yooyu léegi rax rab boobu faaw nga xam man koo def mu bàyyi tas yaakaaru jàmbur bi mu tas yaakaar. ok dégg nga xam ne. Mhm. am na ci ñoo xamante ne dañu bëgg soxna ak yooyu. Mhm. waaye du ne am yaakaar ba tey mu yàqwaat loolu mooy problème bi kon léegi sëriñ bi sëriñ ki nga xam ne sëriñ la faw mu seet mën a xam excepte li yàqal bu ko defee nit ki tamit doyloo ko nag gëm ko bu ko gëmee rek mu dimbali ko loolu man bu bu réew mi yëpp maasee gëm sëñ daam léegi man réew mi xam kan mooy sëñ daam bu ñëpp maasee gëm ma man léegi ma war leen yoon man ñu xam ne ñu xam ne sëriñ am na man waaw ñi ma jot a ñama ko su néew xam nañ ci ah xasu bi ñu ci bëree bëri bin ci laalantee xam nañ koy sëñ daam ci xasum xaalis bi dégg naa xaal lu garaaw la nag ñu ci bëree bëri bin ci laalante xam nañ koy sëriñ daam façon lu lu ma ci bëgg ñu jox ma ko parce que damay ubbi say bunt damay ubbi say bunt def def liggéey bi ma ci war. bu ko defee macha allah daf ni ma koy liggéey dama ko doon mën a wax ci média ñëpp di ko dégg. mais alal xaalis mi ku ko jëfandikoo nu muy def ci yow. maanaam dangay ngay sant yàlla maanaam da ngay sant yàlla réccu yi li ngay réccu mooy yeex gee am lante ak sëriñ daam. yeex gee. xam nga day ñoo xam ne da ñi ngi ñi ngi dégg sëñ daam waaye ndaysaan saan insister ak yooyu lool nag lool nag maa ñaan sama borom xal wa ñaan sama borom ne ko ku sa aajo na rafaju na insister ba génn ca bu ma xaalisam bu ma ko liggéeyal bu ma ñaan loo loolu kay man maa ko def léegi nag ñooñu nag ku ci insister bu mujj gi woo sëñ daam da xam ne lépp dëgg la ñun boo ñu woowee rek amul benn problème xasu xaas bi dama ko oyofal bu baax sax pour nit ñi ñame ko bu buñ ko ñamee nag ba dugg ba ci bi aha la ne xam kan mooy sëñ daam kon nga xam ne cin bokkut safin ay ci téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek euh, di nga ko jot sëñ daam Seck mu sëriñ tuuba Mbacké bu dee jigéen gi nga xamante ni problème am mooy am doom donte dem na hôpital sax ñu ne ko yow duutoo am doom kookee bu la seet far nga mën a jaar ak moom ba dimbali ko jigéen gi nga xam ne dafa tëam doom. man sant naa yàlla bu baax ndax euh, boo déggee man la sant naa yàlla baax. Euh, gone gone laa ci euh, saayir waaye mag laa ci baatin. nii nga ñu gisee ni ku bëri ay turandoo lañ. Ah. waaw ku bëri ay turandoo lañ. lu loolu. te dañ may tudd doom ba pare dafa laale ma teraanga waa seetal li ci suuru xew bi. Ah. damay yónnee xam nga man du ma di dem ay tudd lu ci bëree bari ah. maanaam du ma di génn lu bëree bari waaye ci suur bi dañ ma ci yónnee waale teraanga seetal li seetali kenn mësu la gis li ne mel te li ko waral mooy seeni xol mooy sedd ci man rek hmm? am na ci ñoo xam ne ndoxu sitee leen mooy yàq bu doom ju nu am rek ndoxu sitee kay yàq am ñoo xam ne dañuy amee àndaale bu bon àndaale nag ak ndoxu sitee bokkul moom àndaale rab dégg ak ndoxu sitee ba tey bokkul dama lay leeralal waaw gis nga gis nga gis nga daa am sëriñ yoo xam ne dañuy làmbatu rek man na laa wax ne la ndoxu sitee la teem doom fekk daa am àndaale rab la laxasu loo doom joo bëgg kii mu yàq am ñoo xamante ni du àndaale rab ndoxu siti mooy yàgg ak ñoom ba tey di def effet di yàq lu bëree bari kon loolu faw nga tase sëriñ Kamaal mu man lay leeralal lenn la dégg nga wax mi waaye du ku ne ku génn si média rek nga yëkkati sa xaalis jox ko bu xamul bu bu bu bu la wanut xam-xam nga ne ñëpp xamuñu dara du noonu du noonu xam nga loolu mooy loolu mooy découragé loo ñu bëree bari ndax suñ métier mi nañ na xam ne daa am ñoo xam ne dañoo gëstoo xam-xam toog soog a toog ci média am ñoo xam ne gëstuwuñ xam-xam. dañoo jékki-jékki rek wut seen wut seen i taraayu yaatu. dégg nga wax bi ak di neexal ay xale ak yooyu booy tiktokeur yi ñu leen di siiwal ak yu ma xamul nga wax bi loolu dong la ñu ci bëri bëri lool waaye mu amuñu benn xam-xam. koo na koo ne ci yaa xam-xam nekk fa dégg nga wax bi. koo na ci yaa xam-xam nekk fa kon nag loolu faaw sénégalais tamit di wax naa ne ko ay yoon yoon waaye faaw ñu ci bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax mais sëñ Dame Seck mu sëñ Touba tey niw kattan nekk na jàngoro joo xamante nii jot na nañu ñaan ko ndax kër yëpp neex jigéen ñi xuntu li ko waral mooy seeni borom kër tey lañ war a ak ñoom siquñ ko ak ñoom sëñ Dame am na garabu niw kattan gu ma gis tamit euh, ca Aliya mais ba tey gisuma ko fii teenu maam Cheikh que bagage yu bëri tamit gisuma ko fii nii waaw xam nga ñun suñu suñu lu ci bëree bëri daanaka jotug di ko ko wane nii laa doon am ku bëgg daal boo ma waxee rek man ma yónnee la say mbir waaye bu dee ci wàllu néew kàttan tamit moo xam mooy néew kàttan moo xam mooy émérite ñaar yi dañoo nuroo waaye ba tey bokkul ndax fi mu ne nii néew kàttan ku ki émérite te fajut émérite mën naa dem ba wàll ko mu amee néew kàttan problème de néew kàttan mm-hmm. du mënal te ay soxnaam dara mm-hmm. am na ñoo xam ne tamit siti day dem ba yàq say day dem ba yàq yaramu doomu aadama bi ba nga xam ne ba tey siti day daal di néew doole ba nga xam ne ba tey doo mënal sa soxna dara da ngay gaaw a egg teer dégg nga wax bi mm-hmm. nga xam ne kon sa soxna ni mi daal di mujjee mooy di seeti koo xam ne moo la gën a kii la yooyu ñu ci bëree bari loolu mooy seen problème kon léegi ndax euh, euh, góor ñi tamit war a ñëw gën a faju ji tey dem ñi nga xam ne yàlla da leen a may dégg nga wax bi nañu dem ca ña nga xam ne yàlla may na leen. voilà ñu fay joxe seen su weccet mën a mën a am résultat dégg nga wax bi. waaw waaye am na ci ñoo xam ne dañ lay dof loo rek am na ñoo xam ne sax li ñuy jox li yi ñuy jox doomu aadama ñoom seen jëm bopp duñ ko naan. waaw ndax ndax ndax lan. wóoluwun ko wóoluwun ko ba pare tamit euh, seetlut liggéey ba seetlut loolu loolu tamit da ci am ñun suñu liggéey dañ cee seet yàlla gis nga man dégg sama liggéey dama cee seet yàlla mhm. waaw dama di nit ki na ciy seet yàlla li nga dul naan bu ko jox nit bu ko jox rakki jàmbur parce que koo ko jox rakki jàmbur la wala yaayi jàmbur wala magi jàmbur mhm. wala déet waaw kon nañ ko nañ bàyyi xel loolu nañ nan ci bàyyi xel bu baax booy joxee na nga gëstu yu set wecc nga liggéey ko liggéey mu mucc ayib nga joxe ko ku nekk diaspora ak fu nit ki mën a ne man yor naa samay CP dégg nga wax bi voilà fu nit ki mën a nekkee rek am na ñoo xam ne daanaka bu dee garab yi moom jarut di ñëw cabinet Touba bi foo nekk rek mën nañ laa dugal sa yos nga jot boo jotee rek nga daal di may photo envoyé ma ma wax la ni nga koy jëfandikoo dégg nga wax bi fu nit ki mën a nekkee rek mën na maa woo su ma woowee rek ma teg ko ci yoon daanaka jarul ñu ñëw ndaxte mbooloo mi day bëri yéen bëri yi te man puukare bi bëgg ma xam nga dégg man nee naa leen kenn ma fekk fi may faje nga may filmé kon xam nga man neexalu ay nit naan leen génn leen ne sëñ daa ma faj xam nga man doo doo ko dégg mukk doo ko dégg mukk parce que li ko war a mooy dañoo am sutura mm-hmm. dañoo am sutura te dañoo dañoo am sutura euh, dañoo am sutura mm-hmm. nit na am sutura mm-hmm. waaw ah, man am na ci nit yoo xam ne dama leen di faj ban ba ban na cocc te ñaar dërëm dama leen ko lekkal te loolu lépp ci sutura la nit dayem sutura waaw nit dayem am na kilifa yu ci bëri yoo xam ne tamit man lan doyloo ci fatu xalwa man lan doyloo ci ñaan yàlla waaye daanaka li tax ñu taamu ma nee na ma sëñ daam sutura si waaw yow nga egsi bu la neexoon woo ay nit di leen neexal ñu lay filmeel ak yooyu waaye yow ko sëñ daam kilifa yu bëree bëri loolu lan may seedeel te loolu li tax ma li tax ma sant ci mooy gërëme ko sëñ Muntaxa Basiir Ah, dama koo gërëme sëñ Mountakha Bassir ah kuy kuy baatin moo la ëpp baatin ah, euh, kon loolu moo waral man ma am sutura sutura mooy lépp voilà ni te réew mi na am sutura waaw na am sutura gis nga koo fee koo koo koo xam si kam xam na sa fanweer te daa noppee moom dégg nga wax de gis nga koo fi yaakaar ne xamalu la dara xamal na la lu bëree bëri waaw man fi mu ne nii yu yu ci neen avay nañ ko yu ci bëree bëri avay nañ am na ci ay comédien yoo xam ne seen i mbir ci bëree bëri avay nañ moom te bu ma tey ji di ko publier baa ma ko ñi nga xam ne ay secret yoo yore bëree bëri mi ngi bëri mi ngi ah. ma bul dugg foofu sax que euh, fi ma waaw euh, fi ma bëgg ñu dugg fa bokk na ci li nga xamante ni moom mooy sëñ daam digganteem ak euh, jaaro bi am na jaaro bu doy waar dégg naa booy liggéey man jaaro bala ma koy liggéeyal nit ki damay jox uh, turam ak turu yaayam ma mën a xam te ban bis laa koy liggéeyal jaara bi mm-hmm. waaw te jaara bi tamit buñ ko bu ma liggéeyee secret jaara bi ba pare moom bu ko neexee ma jox ko secret bi na mi demee ca jaara ba mm-hmm. cote la dégg nga wax bi mm-hmm. maanaam cote la ndax day am ñoo xamante nii ñi ngi may diglu fi mu ne nii am na ñoo xam ne dañuy dañ leen tekk di bind di ma diglu kon dama wax sama jaaro ni ma koy liggéeyee ñu koy def te ñëw te ñëw ñu gëstu ci man xam-xam hmm? dégg xam-xama wóor mooy lépp xam-xam a wóor waaye day am ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy toog seen ëpp saar rek di déglu ëpp lu mu wax ñuy bind. loolu mën naa ñàkk nañ ko su ji xam-xam ah bu boobaa tamit koo ñaanal du jàll ndax li tax du jàll mooy dégg xool ma li tax du jàll mooy. li tax du jàll mooy euh, mbo euh, maanaam euh, tawféex ja tawféex ja moo ca nekkut nit ki pour mu am xam-xam faw day gëstu ji mën a am tawféex. sëñ daam waaw maam toog fee rek daan ne sëñ daam wax na xam-xam lii xam-xam la déedéet da ngay gëstu sëriñ daam ba am yërmande sëriñ daam loolu moo war a gars yi sëriñ daam mën a ànd ak yow nga yem a yëri seen ñu ci bëree bëri ñu ci bëre bëri ci média bi foofu ñu ci bëree bëri dañ may fekk Tuuba dañ may fekk Touba ma jox leen secret dañu ñëw sama saal bii nga toog fi la ni toog diju ci suuf ma jox leen secret ñu dem di faji aajo ñu dem faji aajo noonu la waaye toog fa nga toog rek daal ne sëñ daam wax na xam-xam daal di bind daal di ne acca am naa xam-xam du noonu de waaw ah, da nga ñëw ci sëriñ daam tërbiyee ko noonu la demee sëriñ Dame Seck mu sëñ Touba ay numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek da nga ko jot ah, boo xoolee Ousmane Sonko am na ay wax yoo waxoon ci moom yu bari ñu ngi koy tàmbalee gis mais da nga ma waxoon ne ma 2023 faaw nit ñi jugaat farluwaat ci mbirum kaaraange. nit ñi doomu aadama gis nga doomu aadama. Mm-hmm. doomu aadama. Mm-hmm. bu bëgg jariñu fi mu ne nii. waaw bu bëgg a jariñu nag laa waxuma nag ku bëggut a jariñu. Mm-hmm. waaye ku bëgg jariñu. bëgg a dimbalee da nga sa jóg ci sa bopp. ndax fi mu ne li ma gis ci réew mi keemaane na keemaane goo xamante ni man li may man mooy di fatu xalwa di ci ñaan sama boroom rek waaye man du ma wax ne duma wax ne du ma du garaawal kam ni yenn nit yi def de garaawal di wut ay bës ak yooyu man yooyu uma jot gi uma jot gi man sant naa xaadim rasul baax ndax man sama bës mooy bëgg xaadim rasul ak di jëfal xaadim rasul man loolu mooy sama bës keneen ku man di doon nag yow jàppal lay sa bës yow waaye man loolu man man sëñ Dame Seck bu Sëriñ Tuubaa man loolu mooy sama bës dégg nga wax bi kon réew mi ndaw yi ak mag ñeek kilifa yeeg ñëpp nañ gën a waat te gën a góoru ndax tàkki tàkki réew mi ak jaxasooy réew mi gis naa ko te yàggatul dara nag li ma wax nii man li ma wax nii moom yàggatul dara tàkki tàkk yi ak rayante bi yàggatul dara ngeen teg ci seen bët ndax li ko waral man xam naa ko. li ko waral alaaj dégg day am loo xam ne du waxi rajo. waaye li waral tàkk-tàkk yi ak li waral rayante bi nar a am man xam naa lu mu doon. waaw waaw loolu tamit faw kon réew mi nan juga nan jug ci seen bopp. nan jug ci seen bopp gën a defar seen seen seen yaram. Mhm. dégg nga wax bi ndax boo defarul sa bopp mënoo am avenir bu baax. waaw suuf bu sutantee dañ koo jal waaw gis nga koo fe gis mu romb la akub kaat kaatam la may sangoo ak fa may dem di ñaan lu du la ko wax waaye nag da lay loo naan la xamuñu dara sëriñ si xamuñu dara te moom kat saa su xëyee mi ngi sangu léegi kon xanaa kon sëriñam moom moo xam dara moom question laa def sénégalais yi ndaw ñi na ngeen jug seen bopp surtout waa diaspora yi na ngeen jug seen bopp du sëriñ yëppay dóor waaw day am nag ñu leen gëmloo ne ñoom ñëpp yam ak yooyu waaye du noonu. waa diaspora yi tamit na jug seen bopp ñoom tamit. waaw te xam ne suuf bu sutante dañ koo jal waaw te ñiy naxe ñi ngi naxe waaye ñii am xam-xam tamit yàlla may leen ñi ngi fi ba léegi. Ah, ndax naxe moom ñetti fan rek la. Mhm. Ah, bis bi nga ko defee ak bi ko ñëpp xamee ak bu la ñëpp baax. ñetti fan dong la kon. lu dul dëgg tamit du yàgg. Mm-hmm. si taw. te te ñu xam ne tamit man xaalis bu duggee sama poos kaw nu na bii sëñ Muntaxa Basiir la. xaalis bu duggee sama poos nu na bii sëñ Muntaxa Basiir la. man tolloon naa guddi yoo xam ne bu ma am poos du ma ko sol. bu ma ko solee sama bopp di metti kon kon kii jug ne pour nax ba waat naa ko ci alxuraan. ji alxuraan. waat naa ko ci alxuraan soo ma saan sol mbubb mu am poos sama sama sama sama sama bopp nii lay def fet fet fet fet sëñ Mountakha Bassir moo moo moo moo moo moo ko dindi moo ko dindi ma solaat yéere carrément di sol mbubb mu am poos dégg nga wax bi kon léegi bu maasee na ñëpp dañuy teriyaa ak ñëpp du ay ay nit yu baax lii mooy lan léegi kon yàlla moom ana yàlla bu ñëpp maasee ne ku téye micro baaxoo nit ko bon ka da ngay waa léegi ana yàlla kon kon da yàlla dañoo bañ ah noonu laa mën a waxee nañ waxante dëgg rek léegi bu fekkee ne ku téye média ku téye micro rek nit ko bon nga kuy wax ne yàlla may na ma lii ñu yàlla may la nit ko bon nga waa léegi kon kon kon yàlla daal du yaa may tontu parce que bu fi yi nekkoon ñoo may yàlla du yàlla day maye. Ah, damay dégg ci sénégalais yi ñu ne ko téye micro rek baaxoo amoo xam-xam. ne ko man du feeñ ci écran. waaw waaw léegi kon ana yàlla. jamono bii ñu toll bu doon Seydina Ahmed alayhi mi ngi dund day téye wax fi mu féete wax lim gëm suñ kilifa yi kay yaa ngi di gis. non non non du micro di wax ah, ah, mais dama laa ne kilifa yi ñu gëm téyewul ñu wax fi mu féete wax leen laaj naa ak naa ko sénégalais nañ ko bind ci commentaire léegi yàlla kon mënut a daal. kon daal li ñu bëgg a wax moo de baaraam yi yëpp a tolloo daal. na leer Medoune jëlal bu baax kon kon daal léegi na leer xam nga sénégalais man man bëgg naa leen waaye faaw may leeralante ñoom faaw may leeralante ndax man yàlla doo nga tax may wax man la leen taxul may wax bu dee wàllu may oto sant naa bu dee ay kër rafet sant naa xaadim teral na ma sant naa baax a baax waaye jël ma baax ma leeral doomu aadama kon léegi doomu aadama dañoo bëgg a wax ne baaraam yi yëpp kon ñoo tolloo mm-hmm. kon léegi dañoo bëgg a wax na tamit réew mi yëpp ay la Ah, déet déet nañ wax la léegi kon dañoo bëgg wax ne réew mi yëpp ay tubaab la léegi tamit dañoo bëgg wax ne kon adduna bi yëpp ay Sénégal ay ay nit yu ñu ñal non dana leer day leer tey day leer li ma bëgg sénégalais yi xam ko mooy ñëpp boo ko ñeem te yàlla daa mën a may léegi li bëgg a wax tamit kon mooy doomu aadama yëpp dañuy maase di sol ay ay bàyyi laat déedéet am na ñu léegi kon faaw ñu xamee ko. am na ñuy def abason am na ñuy def abason so am na ñuy sol boo dee jiin. gis naa ko sol kële def zipp. sol boo dee jiin. naa ko xam ne solul dara. léegi nag yow boo bëggee wax ne lépp a yem ñëpp a tolloo yàlla ñëpp la yemale ñëpp a tolloo loolu du dëgg de du dëgg tey. daam am na ñuy def kële ak kap. gis nga fay étage su kawe te yow ci am néegum ñax nga dëkk nañu te dëgg. kon lépp mënuñoo maasa yam sëriñ si téye micro nii tamit man damay wax lu leer tey sëriñ si téye micro tamit ñëpp mënuñoo maasa doon ay doon ay nit yu bon nan ci bàyyi xel bu baax. Euh, euh, ñu ñëw ci ba tey. mais mais mais mais ñëwal ci lii ñëwal ci doxalin Ousmane Sonko booba léegi justice mi ngi koy woo mais wuy juwul yow ban jàngat nga ci am en tant que sénégalais. gis nga Ousmane. damay wax réew mi tuuti Ousmane dafa am bopp. Mm-hmm. bi ci jiitu mooy usmaan ku amu bopp la. man neexaluma ko jayuma ko. man doyloo naa xaadim rasool man bu ma amee ko may jay kaw nu nabi yu sëñ Muntaxa Basiir moom laa jay na waaye Ousmane ku amu bopp la. am bopp la. ku am bopp nag am na lu ci mag ñi wax. soo ko mënee moytu wala di ko laalee bant bu bant bu gàtt xoolal wut sa bant bu gudd di ko ko laale moo ca ku am bopp la. loolu faw ma wax ko ñi nga xamante ni ñoom la seqal mbir mi. ñu tee ci Ousmane te moytu Ousmane. te fexe jàmm bëgg jàmm bëgg jàmm am jàmm nit ki moo koy sàkku. dégg nga wax be. jàmm nit ki moo koy sàkku man li ma bëgg mooy ñu sàkku jàmm ñun ñëpp waaw. dégg nga wax bi. ndax man ci jàmm laay dox. bu ma soñoon réew mi jàmm rek fi yam wala déet. kon Ousmane dafa jàpp ne euh, Macky def ko mooy jàmm. Euh, euh, déedéet déedéet déedéet président Macky man tudduma ko de. man tudduma président Macky. man damaa bëgg rek réew mi laa ne ñu am jàmm. man tudduma président Macky. parce que président Macky ku aw ma lenn lu ma wax si moom lu dul lu dul jàmbaar la. awma leneen lu ma mën a seere ci moom mi ngi léggéey tamit jàmbaar la waaw am réew nag moom ñooy xool kenn ku ne mooy xool la mu gëm waaye man président ma Sall li may mën a wax ci moom moo di jàmbaar la te mi ngi liggéey Ousmane Sonko laane am na bopp su ma sañoon ñu moytu yu ci bëree bëree bëri ndax aytu yam ci bopp borom tamit pour ñu bàyyi ci xel dégg nga wax be kon bu ma sañoon daal ñu ñu ñun ñëpp ñu maase ñun sénégalais yeeg président beeg Ousmane Sonko ñun ñëpp ñu maase wut jàmm jàmm mooy lépp man lancé sama message yi ñu wut jàmm ndax jàmm mooy lépp. ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. nañ wut jàmm. ñaat yoon laa ko wax nañ wut jàmm jàmm mooy lépp. Mamadou Ciss da baax jàmm ma la doon woote. Mm-hmm. kaw nu na bii sëñ Mountakha Bassirou mi jàmm lay woote. Mm-hmm. dégg nga wax bi. waaw kilifa yépp jàmm lañ bëgg. Mm-hmm. te réew mi li ma ci gis. dana yéeme. kon nañ kilifa yi woote jàmm Ousmane Sonko woote jàmm ñun ñëpp ñu woote jàmm sëñ daam woote jàmm El Hadj Dégg woote jàmm ku téye micro nga woote jàmm. ay du yam ci bopp borom man damaa bëgg réew mi rek bu ma sañoon réew mi du tàkk ba jeex te li ma ci gis nii tàkk-tàkk yi xaw ma fu mu yam man bi ma ci fa xol wa ñaan sa gis li ma ci gis laa nag laa wax danaa def samay sara waaye li ma ci gis tàkk-tàkk yu garaaw yi ma ci gis ak bu bon bi ma ci gis doy na waar te kon teel na maa génn ba wax ko dégg nga wax bi danaa dem tamit ci sëñ Mountakha Bassirou xamal ko ko li ma gis lu mu ci man tamit moom tamit mu génn woote jàmm dégg wax bi waaw kon li ma bëgg mooy ñun ñëpp nañ maase woote jàmm. ñu bëgg jàmm. voilà. mooy lépp ay mbokk yi. message may lancé mooy ñiy saaga euh, ñi nga xam ne dañu nekk ci réseaux sociaux saaga tamit nañ ko bàyyi. tooñ baaxut. tooñ baaxut. tooñ day gàttal fan. beneen bi cop kii tooñ du wér. te day ñàkk. parce que booy tooñ tamit da nga mas a tooñ laala da nga laa laalaake kon ñiy téye seen micro di dagg ay saaga ak ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy def seen euh, senat di saaga nañ ko bàyyi. saaga baaxul. waaw saaga baaxul ndaw ñi tamit nañ fonkaat seen i wayjur ndaw ñi nañ fonkaat seen i wayjur mooy lépp. nañ fonkaat seen i wayjur dégg ndaw ñi nañ fonkaat seen wayjur nañ fonkaat seen wayjur wayjur mooy lépp. gis nga ku ci fonk say wayjur yàqu nga. nañ fonk jur yi. nañ bàyyiwaat xel wayjur yi. di gërëm sëñ Mouhamed Mbacke di gërëm ñëpp sëñ Mountakha Basir sama nday sama baay maa ngi koy gërëm di ñaan tamit euh, waxutu leen yow ma maa maqaamaati rajaal bilaa tasal su leen wa Basir bi nijaal ku ñu woo rek dinañ la dimbale incha allah rabbi. ay co dégg ngeen sëñ Dame Seck mu Serigne Touba li mu waxtaan tey mu nekk waxtaan woo xamante ni ku ko déglu xam ne borom xam la nekk waxtaan woo xamante ni ku ko déglu xam ne jëmm la joo xamante ni njariñ rek moom moo ko Euh, ñor am réew nag boo fi nekkee da ngay doxee na réew ma di doxee mbokk yi kii kilifa la te ku yàlla may la ñu ngi ko fekkoon fii ci diwaanu Touba kër teenu maam Cheikh. ak ko ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp duñu ñu suivre ci MPROD TV yi yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jëye Mouhamed Rasulullah